salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi si suivre ci sen wi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax di leen présenté nag ndomba gi ngeen gis nii mag ñi daan nañ ko woowee dungu dungu waaw dungu nag nee mooy koo xam ne même boo defoon taat ne sax mu jig la nga xam ne daal nit du mën ci yow dara du làmmiñ du bët du doon paaka du doon jaase du doon fetal ndomb gi nag képp koo xam ne bëgg na ci incha allahu taala su wootee dinañ ko leeral ana lañ koy defee ak yan anam lañ koy defee jamono kat kaaraange baax na ci lool rawatina suñu jamono ji kon mbokk yi loolu lu mu doon waxaale la donc waaye taxuñoo jóg ñu ngi leen di fàttali nag groupe whatsapp STTV Sakatou Touba mi ngi existé te mi ngi jàngale xam-xam bu baax a baax a baax te lépp loo xam ne mënuñu ko jàngale ci YouTube bi rek foofu lañ koy mën a jàngale ci kàttanu yàlla inscription bi égal vingt mille francs CFA maa ngi ñaan rek ku jekkut ci ngay woote mën ngaa bàyyi ba jekk soog woote incha allah mbokk yi tey dama leen indil lu baax lool ci cat waaw ndax dafay sonal nit ñi rek indil leen ci lu baax lool mbokk yi da ngay bind suratul fatiha aaya boo bind nga teg ci benn lixlaas benn falaxi benn naasi nga bind ko bu mat juróom-ñaari fatiha boo noppee na nga wut ngeer xob yi ak xobi alom ak xobi dugóor mu ñetti xob nga def ko ci biir saafara si raxas leen ba mu set nga wut juróom-ñaari guro yu xonk juróom-ñaari guro yu weex nga def ko ci biir nga ciy sangu di ci naan pendant sept jours incha allahu taala cet lu nekkoon ci yow dana dañ ba set wicc salaamaaleykum wa